Le bilan de l'effondrement de la dalle d'un bâtiment survenu jeudi au quartier d'Orong de Kaolak est passé à quatre morts après la découverte de deux nouveaux corps dans les décombres. Après les deux morts annoncées hier, les secouristes ont encore extrait des décombres un homme d'une cinquantaine d'années et une fille âgée de 5 ans après plusieurs heures d'intervention. Au Sénégal, entre 5 000 et 1 million d'enfants ne vont toujours pas à l'école. Ces chiffres par les acteurs de l'éducation nationale, repris par le journal Le Témoin. Ils se réunissaient hier à Dakar pour le traditionnel séminaire de rentrée des classes. Un nombre important qui pousse à faire de l'éducation de base de qualité une priorité pour le système éducatif sénégalais. En Afrique, la situation est confuse au Burkina Faso où des coups de feu ont été entendus aux environs de la présidence de la République ce vendredi. Selon les autorités, les tirs sont liés à un mouvement d'humeur de soldats. Le, colonel, le lieutenant-colonel Paul Ali Damiba a déclaré que la situation confuse est créée suite à euh, mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales euh, ce vendredi Il assure que des pourparlers sont en pour ramener le calme et la sérénité. La mission de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, venue négocier jeudi la libération des 46 soldats ivoiriens détenus pour atteinte à la sûreté de l'État, a quitté Bamako sans, sans aucune déclaration à la presse Après des rencontres à huis clos en deux étapes, la délégation était composée de deux chefs d'État, Nana Akufo-Addo du Ghana et Adama Barrow de la Gambie, de Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, et de Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Sur l'international, le président russe Vladimir Poutine a officialisé ce vendredi 30 septembre lors euh, d'une grande cérémonie organisée par le Kremlin l'annexion par la Russie des quatre régions Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia de l'est de l'Ukraine au nom du droit l'autodétermination des peuples. également appelé l'Ukraine à cesser immédiatement les hostilités et à négocier En Iran, des hommes armés ont ouvert le feu vendredi septembre et lancé des cocktails Molotov sur un commissariat de la province de Sistan, dans le sud-est du pays. Plusieurs policiers ainsi que des passants ont été blessés par les échanges de tirs dans la capitale provinciale Zahdan, relate la télévision nationale. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.